jàng ma demoon démb ku mun a neex na sa morom yi say séen naa leen fa xam naa ni boo jógee moom bee nga bale raxas ndab yi ndax xam naa dama sonn jàngee dama faa guddee jóg yow mi nga xam ne daa nelaw rek ngay def ana ma Samba Samba dee ngi nelaw yeewoo da góor góor démb de am na xale jigéen yu ma gis yoo xam ne tabaski yi tax na ca jàngee ban mag ña toogee ne ca jàngee ñoo nga bokkatu fee man daal man xam naa ne xale jigéen ñi ak tabaski bi niñ ko nar a jàppee ñoo na waaye yow leen baax bu leen ko dara jaral chaque jour ma ne dama ko defal ci café gi chaque ko defal ci café gi rek alaaji damaa demoon ay jàng démb biddanti seen jàng ñàkk fula yooyu génne ma ci alaaji bul wax loolu génne ma ci naaj kii naajee yeewu biddanti ah tant gaaw ndékki dëj ba laa bëgg dégg naa àjji nañ waaw Massamba de laay xaar ne say bon dëj la ñu ajoon bay àjji ah, ñoom Samba kat seen dëj ba ñuy xëlu ci kii naan Pire lañ koy suul kii naan Saalum lañ koy suul coola bari pëlise ba nangu neew ba denc ko xam naa dañoo juboon rek moo tax ñu àjji aj dëj ba nijaay li ñu xewal ci dëju léegi yii waa ba ma juddoo ba léegi man maa ngi doog a dégg sax dëj bu ñu aj dëju lee amul valeur ah, dëju lee léegi de juddoo gën a amatul valeur xam nga bu ñu demee bay aj ay dëj ah, ah, waaw waaw waaw sama mba mu gaañoo dëj bu neex la am dëj bu riis xaral ah bala maa naaje Masamba de laay xaaraale nii kan Masamba daa war a jóg léegi xam naa. Masamba man xujja laay may ma sama jàmm muy Masamba dépense Masamba ko jox wala Masamba koy joxe. Nijaay àndal akub dal Nijaay àndal akub dal. Nijaay Masamba gën nday wala moom a gën bàyyi naa ci xam dara. waa Alaaji bàyyi ma ma sama waa léegi ndekki bi nday ja doom ja nday ja rek doom ja bon mbay bëgg a dem Masamba. Masaya waaw papa dangaa moom. yaa ma ba ko na lekk. waaleykum salaam. waaw. coono si am coono. Masamba dama nekk ba kaay kaay nekki ba pare kaay ma defaral la nga nekki ba pare. Mhm. yow foo jëm. sama benn xar laa seetlu seetlu daa samba sag bis bu yàlla sàkk sab xarit ngay seeti samba bu xoo moom indi loo ma dara lu dul tey diw laay suba diw laay seeti waxtu yu masaan toll fii doom yëpp dinañ takk seen bàyyi xar ci diggante ba samba maa ngi nii mënu ma am xar tër bi waroon fekk may manifesté wu di jaddi jaddi di di di bajantu na am naa xar ñëpp alaaji may ma sama jàmm sama doom laay yedd. alaaji dalal alaaji gor kenn du koy yeddee nii as gor boo koy yedd danga koy woo ci rëq wax moom waaye xanaa sax balaa nga koy woo di ko xas a koy yedd nga bàyyi ko mu ndékki. eh ma sàmba bu doon gor dama koy far sama néeg bee yeddu ko. ah du gor ah. ma sàmba ma man gor laa. Ah, kon yow doo gor. ah du ma gor kon. kon yow du ma gor kon. Ah. yow eh, yow laa wax. waaw yow waaw naanal café ba pare ma doo fi naan tus ma sàmm ko man maa man maay baadoole bi man daal man maay baadoole bi man. ma la faale wu na ma nekk. alaaji yëpp lekk. bu amoon jom dana liggéey min daan di am junne juróomi téeméer di ma jàpp si soble wala wala wala mbot mbow xar. ma liggéeyee kuy togg. sa ndey ji togg. kii de mooy samay tànk di samay loxo di samay gër. ma yónnee wu ci bon bay bëgg a dee. jàppale ci kër gi. bi nga jàpp di ko lekk te du ma sa morom de yow du ma sa morom laa wax. wax na la dëgg. Eh. nga àttana lekk bàyyi say doom jàkkaarloog ndékki bi fas yéene koo lekk bàyyi say doom alaaji bàyyi jaam mu defu la dara. soo koy bëgg a dee. la dégg yaama jógal dem sa liggéey ba ko mu lekk ko bu ko mënee jeexal na ko jeexal. loolu mu lekk rek kon nga ma taama nga jël a paar maa la gën a baax a preg man toqal yàmbaa laa woon man danga ma xàmmewul maa fàttali ma dem man. alaaji alaaji eh ndékki bi na dellu si eh. ma ma muy ndékki na ndékki na dellu bi na dellu si fii yow xam nga ne su ma nee tekk xale yee tax dama ne na palaat bi ñëw alaaji na dikk. ay naa desal yow eh, na palaat bi tegu fii na dikk alaaji jox ma sama termos. wóoru waxtaan. Eh, indi ay lekk ko bañ a nga lekk ko nga lekk ko. yow nga lekk ko siis bi bëgg dee. moom jikko siis siis siis dina di mën a bon. alaaji. da ngaa bon laaw alaaji. Eh eh, eh, eh eh foo jëm foo jëm yow du yow xamante ne eh. yaa may gaañ. foo jëm yow yaa may yaa may gaañ sa yaa may gaañ. ma lay yow alaaji doo dal yow la la xool ba muy mel ni cuuc. yow dalal. yaa may gaañ. yow war ma Samba xas ko ba mu ràpp ba nekkiwul gaañ yow xam nga ma de. du yow xam nga ma. yaa may gaañ. eh tabaski gi ku koy lijjanti. xar xar mi ku koy lijjanti. danañ ko lijjanti. eh dama ni ku koy lijjanti laa wax. dinañ ko lijjanti. ay yow da ngaa ni yaay borom kër gi yow. da nga koo fàtte. déedéet du man Adja Khoudia xam nga ma bu baax. boo jógee foo jëm. naa ko jom lool. góoru wat ba bëgg xam nga ma bu baax. di nga xam ne man jéeg piir laa nam ma dara fii nga xale yi di toog ngay ratatati maa ngi yow ci biir néeg bi muut ngay def. yow yow rey ko nit nga da bon. yow daga ngaa bon. li may def xam naa ko fii lay dem takk takk suuf. di la ko nëbb doo ci dara sa xol di bon. ma yow ni jaay sa dara baaxatul di. ngay naan yow sa dara baaxatul di. su baaxoon ma yow ni jaay takkal. ban la bëgg ji yow sa dara doxul. dama lay sagal doomu ndax xale yi. bu xool dëgg su baaxul du ma doom. li may maa ngi ñaari doom. mooy yow di jaay takkal. ban bébé nga dee yow sa dara doxul. dama lay sagal doomu ndax xale yi. yow loo mën fayda. yow ngacc naa la ba nga set dalal. dese woo dara. su ma njaay ma lakkal.